si ñuy bëree combat spécial mbër bëgg naa la. waaw char naa tey nga ñëw indaale sa mbooloo ñu dar la nga war a bëree fii ak combat kan ngay bëree. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sant suñuy ñaari waajur ñi ngi sant suñu sëriñ sëriñ Amar Bousso di sant suñu xarit suñu wasila sëñ Abdul Karim borom Makaarim al Axlaaq maa ngi bëre ak RD. RD RD laay bëreel. Ah, ok RD moom ngay bëreel. waaw nga indi mbooloo mu toll nii ah, lan ngay wax sax ki nga xam ne moom ngay dajal. waaw ñun dañuy mbërim penc ñun bu ñu jugee fukki ak ñaar yee ñuy topp nga seen nii sax ndaw na ndax dafa fekk dëkk ba may programme su ma yeneen rakk di bëre ji lii nga seen nii asiko bi nga seen mooy asiko dego. ñi nga seen sumay nawla la ñoo fawandoo moo tax man la mbër mi am na problème ñi ngi ñaan yàlla nag yàlla may ñu ndam ci kawam ñi ngi nuyu ñu ñu àndal ñëpp ñu ñuy jàppale du ñuy. ki ngay bëreel ku danser la. Ah. waaw man damaa mën tay lañ koy rey man mbërum bis laa te ma duggee ci géew nga xam man mën géew kii arbitre moo fi bàyyi maa ngi gërëm suma dëkk nag waa Ziguinchor maa ngi leen gërëm bu baax a baax gis naa seen taxawaay maa ngi gërëm waa Ñoos Moon. mais après combat bi. da gërëm maa damay gërëm gërëm gërëmaat. man maa ngi daan jàppal li ma la wax. RDA nee na mu sëb tëdd. da ngeen di yóbboo de faar affaire bi day dem faar. bindal man maa ngi daan bu soobee yàlla maa ngi daan. incha allah jaajëf waaw ah, nooy ñëwaat waxaat. ñaari gara combat ya nekk noonu noppeekunu di rendre commence ci daali Gueye ak kan Dame Gueye ak kan Bara Dieng na Abdou Aziz ci sunu i daali ci sunu xel Dame Gueye sunu xel Bara Gueye Bara ak Fatiha ak fukki xulu ak benn ñu ñaanal Abdou Aziz Fall Idaali Gueye Dame Gueye ak Baara Dieng yàlla xare leen àjjana waa association maa ngi ko taxaw joom def ngeen lu rëy def ngeen jaloore def ngeen lu rafet. ngi fàttaliku seen asaka day war dem a war merci koy jël si tableau Abdou. Ngañ ñëwal. Ngañ ñëwal mu gaaw. as teel benn tableau bi téye ko. sifat Dewit Natago Yodo Fijoge Mandewit no Ye Wail koputas yakar bopi ubuh waaf ñu torox lu sukk ci yërmande yàlla yi ëpp na fukk at yu néew la dund wi sàll la woon la xëy la dëgg tey lu wéy ci gone ku mel ni Cheikh kan moo koy óotu inna lillahi waaye dama ne si ginnaaw dama ne si ginnaaw ginnaaw mbaara. ñu lay ñaanal jàppal nga jug sa bàmmeel ni ko ñëpp waxee yàlla na mu def daa gën dóoru waaye du yaa koy naxe jërëjëf la gis àdduna waaye sa jëf mu fi Fatia Rassi une bonne saxi tu restes inoubliable dans

li nga def rafet na ana Ziza ñëwal taxaw yow soldaaru baay Bébé Gouy Gui nga bàkk léegi baara ànd ak Nogoy Touré ak Soxna Lo Moussé gis ngeen li mu balaa tey diggante Ziza di yóbbu ndaanaan bi l'international merci beaucoup Bara loolu mooy premier combat spécial bi mu nekk li nga xam ne mooy cinquième komba bi diggante Sisa bu Loro ak Sordalu Baye Sisa moom moo nge moo nge mu li Sordalu Baye moo nge moo nge am lu noir li da ngay xëppante suuf yéen bëre ngeen bëre loolu moo nekk drapeau Alaaji Lamine Baara bu Thiès Baara Gueye bu Thiès drapeau Bara gay bu ties domi colom fal bi xale colom fal bi waaw waaw wàccal ñaari mbar yaa nonu di lewato ci suuf ndanan pir moy way koko moy Moustapha job Chicha bu Loro Saudara bayi premier gena komba drapeau Lamine Bara gay domi corom cam colom faal bi xalab Thiès bi wali neex na de mbër nga jappante jàppante Suisa moo ngem moo ngem lu ruus li wan leen Baye sëkkatal na ko nañu ñom ñaar ma ngay signaler barke rasulullah ya mën a way waa da ngay deet loolu rek ñaari mbër yaa ngay la waatoo diggante Sisa bu Loro ak ki nga xam ni moom mooy soldaaru baay Sisa daa mën a lolo loolu xale yi di loolu yi di muucu Ibra Fall Ibra Fall xam na Sisa muucukatu Sisa la ah waaw Ibra Fall muus Sisa la Ibra Fall ak maam Góor ak maam Thierno muucukatu Sisa lan Sisa doomu loora la àndal d'accord Sisa rek ngeen di muusu yéen huit combat alerte nationale ah kon Sisa mbër mu mag la doomu loora la àndal Sisa aja na ko Sisa jàpp na ngor susah attention Sisa la wante soldaalu baay mi mbër la ah waay lamb ji neex yang waay dafa ya yàlla na sa jàmm yàgg babi juba xalab Tuuba bi borom borom borom groupe borom groupe sop sen yaay ay rek oh waaw làmb neex na waay ak soldaaru baay wallaay ndeysaan am na am na am jël bu mag la ma nga ba Touba damay na bu turam si kanam dinaa leen ko wax jël këtu Siteu la ñaari mbër yaa ngi noonu soldaaru baay koy bëgg a dugg Siteu du bàyyi du ko bàyyi du ko rek nañu ñaar lay deggal ma lay tafa di joru ma ne ko déppoon déggal ma lay tafa di joru deggal ma lay jafram tafa di joru wallahi ndaysan ñaani mbër ya ngay jappante ci sa na ko wala buux na soldaaru mu xatiar ko ci bir waye làmb ji neex na di Colom fal commune bu Colom fal nekk ci département bu Kébémer région de Louga fekk fi waa lamb ji pro ñuy amal gala de lutte bu mag 3 jours après tabaski tey mu nekk jeudi yam ak le 20 juin 2024 fii ci diwaanu Colom Fall ñu koy amal fii ci sem bu Colom Fall xale yi colom yi bëgg seen gox xale yi colom yi bëgg seen réew xale yi colom yi gëm seen bopp soldat sëti Amari Ngoone Sabel Fall yi sëti Madior Fall yi ñoo amal galaata lit ñoo bëgg seen réew moo nekk premier combat spécial bi nekk cinquième combat bi soldaaru bay téye na tànk bi Sisa bañ na soldaaru bay daan na Sisa soldaaru bay daan na Sisa soldaaru na soldaaru bay daan na Sisa Général Darou Baye daan na Cissé Abou Loro eh, eh indil ma ko fi ah ah ah eh mar mar mar kaay kaay kaay noonu taxawal noonu c'est bon c'est bon bëgg naa la. ça va lépp sant bi. bu dee combat bu yàgg bu neex. waaw noonu la demee noonu lay demee quoi. waa nga damaa blessé sax jeune mooy loolu waaye waa ji maa man maa ko ëpp doole cinquante mbër laay dem ba final jël ko waaw mooy loolu. léegi lan ngay sant maa ngi sant waa Colom gépp ñëpp ma bëgg damaa ñëw ñëpp ma bëgg ma di sant siini di sant si waa waa Colom bàyyiwu ma kenn ak sama gaayen bii mooy loolu waaw maa ngi bëgg waa Colom. Tafa Babacar topp ma ma dem si Tafa topp ma ma dem. suñu góor jàpp suñu jigéen si réseau ni ko dog ndee la tukulóori ni ko Samba ak Mbaar ko ñu Kumba Lawbe deta Kumba Lawbe Kumba Lawbe soxna Faal may xarante ji biraan dee calaw la ma saas ma coro fay saas ba jàmm ma ñëw ma waay ma ñëw Pape Thiambay Pape Thiambay sama xol sedd na ci yow waa gars yi déglu waay gee waay ngir sëñ Fallou déglu Pape sama xol sedd na ci yow di gërëm waa colom yëpp man seetaan lamb rek moo fi indi tey barke sëñ Fallou maa ngi nuyu ñëpp waaye Cheikh xolal dama bëgg 30 secondes rek kaay tee fii bul miin waaw waaw miin bul ma miin ba fàtte ma kon mu ñaawa ma miin oh, miin bul miin fàtte ma kon mu ñaaw won ma fat ma faal soo dikkul mu ñaaw फठवा करूँ जा Fall Laobé mo nek noonu digënde alburi ak Bébé Gouy Gui Bébé Gouy bi mom min ngeen ko mané Bébé Gouy Gui ngeen ko ndax gala bu yag bu ñu bu association an taxaw lom di amal fi mom bëre nako waye musicien am défaite trois combats trois victoires tay mu dajé ki nga xamni moy alburi mu nek premier combat bu mi amal fi nga xamni moy tunu ci lom fall wante mbeur la wala ñi ngi jakarlo ñom ñaar di lewato Alboury ak Bébé Gouy Gui Alboury nga koy diriger Bébé Gouy Gui ak na topp ah Bébé Gouy Gui am nga combat Alboury ak Bébé Gouy Gui diggante Alboury ak Bébé Gouy mu nekk deuxième combat spécial bi drapeau Mokhoyo Fall moo nekk noonu ngeen di seen làmb neex na Bébé Gouy Gui ak Alboury Albouri musul am defet fi nga xamni moy lamb ji amal at mu jot day ñew bëre trois combat trois victoires la ci am Albouri bi mo nek combat bu njëkk ñu jakarlo ñom ñaar Albouri ne woon na musul am defet waya tay dina ko jox defetam bebe Gouy ni duma ñam lu neex ba nopi diko bayyi na ma daan def ak sama seeni morom non la koy def moy mbar wallahi ndaysan diggante Bébé Gouy Gui ak Alboury Bébé Gouy Gui moo xees noonu wan leen ginnaaw Alboury moo ñuul ngemoo ngem lu ñuul lii Alboury ak Bébé Gouy Gui tey ñoo ngi fii ci Colom Fall département bu Kébémer région de Louga ñu fekk association ànd taxawu Colom at mu jot ñuy amal gala de lutte bi trois jours après Tabaski mu yemook tey jeudi yemook la vingt juin 2024 combat baa ngi noonu mu nek deuxième combat spécial bi waye di sixième combat diggante alburi ak Bébé Gouy Gui ña ngay la wato ñom ñaar jàppante loxo ci souf mom la gaa yi mbar waye la sender limi bakku ci ginaaw neexna ben combat rek moo des diggante la sender ak R2 bobu la ñëpp di xaar mo ngi nonu yi ak Bébé Gouy Gui ña ngay jàppante ci suuf ay waay làmb ji neex na waay organisation bi jaar na yoon làmb ji dal na neex na am na sécurité di sant gendarmerie yi fi nekk sécurité bi ñu organiser làmb ji tambul masoor yi tëggkat yi ba ci animateur bi Alboury ak Bébé guy gi ngeen koy am fii ci seen xibaar seen bu mag bi bi leen di toppal lépp lu jëm ci wàllum actualité ci diwaanu Sénégal abonné leen te bés sem tey partagé abonné bés cloche de notification bi vidéo bi ñëw ngeen mën see jot. Alboury ak Bébé Gouy Gui jàppante na nooñu ci suuf ñu fàttali leen ñoo ngi fii ci commune bu Colom Fall nekk département bu Kébémer région de Louga ñu fekk ci association ànd taxawu Colom ñuy amal gala de lutte bu mag at mu jot trois jours après tabaski mu yemook tey jeudi le 20 juin 2024 fii ci CEM bu Colom Fall troisième combat bi mo nek nonou wala bok deuxième combat spécial bi digënté Bébé Gouy Gui ak ki nga xamni moy alburi ñaari mbeuri dañu lewato jappante ci souf dama mel ñom ñaar dañu tolo doole Bébé Gouy Gui nge mo nge mbulu wertri Alboury moo nge moo nge mu lele goos yi wan leen ginnaaw ah Bébé Gouy Gui tey tey am nga combat Bébé Gouy Gui moytul Alboury da laa bëgg a moot da laa bëgg a rek mu wàcc Alboury ak Bébé Gouy Gui. attention attention Alboury da koo bëgg mboot waaye Bébé Gouy Gui gi lànk na ni ko xalaatuma ko duma nangu mukk mboot mi arbitre bii dina tooy de arbitre bii balaa laa mujjee jeex dina tooy bay boo ñu defal ko am xewar akum sexaw ak buyëg bisaab arbitre bi dina tooy dawam yi métti yii man di kuy arbitre na football li ba jàmm la ah, ay kii na toog waay Alboury ak Bébé Gouy Gui waa parcelle dañuy bëree daan ñibbi wallaay ndeysaan le roi des arènes le roi des arènes Modou Xarañ Lo taalibe Seex bu mag bi kenn du moom Alboury ak Bébé Gouy Gui Alboury moo leen wan ginnaaw ngemboo ngemb lu Lagos li Bébé Gouy Gui moo fete na le yor ngemb lu vert li moom combat yi fi amal lépp day bëree mooy bëree grand combat bi daan trois combats trois victoire la fi am fii ci colom Alboury bi moo nekk combat bu njëkk muy ñëw colom di bëre waaye yàgg naa bëre tey nag mu ni dina ñëw jox defet ki nga xam ni mooy Bébé Gouy Gui dem ñibbi arbitre bi sufla na na diggante Alboury ak Bébé Gouy Gui Alboury ak Bébé Gouy Gui jàppante waat nañu wala boog sufla waat nañu Bébé Gouy Gui ak ay bëre leen waay ah attention Alboury ak Bébé Gouy Gui ay ñaari mbëri ñoo mën a bëre waay waaye bëre leen waay ah Alboury bi na moytu li muy def na moytu na moytu li muy def daa bu ñaare bu ko bébé bu ko kii jàppee dina ko daan de ah Alboury bëre kat la buy bëre doo maye sa nawle boo dee bëreeg moom nga sumeeku mu entraîné nga entraîné day am loo xamante ne doo ko may yow da li mu koy may daa ko may daa ëpp mbër doo ko may leen li doo nangu mu yàgg la fenn li dëgg lii mu ko xëccee nii faaxat ko mu mu mu romb ko jàll. bu ñaaree du ci génn. bu ñaaree du ci génn bu ko jàppee combat bi jeex. dëgg la de. lambalolog moo wax noonu lambalog lambalog xaarim ja lambalolog wallaay ndeysaan nee na Alboury li mu may Bébé Gouy Gui bu delloo mayaat ko ko du baax sa nawle booy bërëg moom respecté ko jappante nañu ñom ñaar digënté alburi ak Bébé Gouy Bébé Gouy mo moo leen wan ginnaaw noonu yor ngemb vertli alburi mo fété moo la yor ngemb lékos li la mujj neex na colom bi dekk Amari Ngone Sabel falbi, bi borom mami 33 dameli lu bax la lu baax lu nekk colom la fu réew mi àgg colom la faaleer ñu mag yi ak ñoo mën a teral gan ak ñoo baax te yiw ak ñoo sell <laughs> bul dugg si loolu bul dugg si loolu <laughs> bul ñoo baax te sell waa dëgg la loolu dëgg la ah, loolu dëgg <laughs> wallaay ndaysan diggante alburi ak Bébé Gouy Gui ñaa ngi lewaatoo ñaar alburi Bébé Gouy fi ci Colom Fall fekk association an taxawu cholom ñukoy amal at mu jot ñu tollanti war iya ko tay yaatal ko ubbi wat mbir mi ko sécurité xale colom yëpp sañse ba jekk ñëw daagu dugg ci si biir barke rasulilaay ak a ñoo mën a sañse arbitre ba sufla na masinil moom ñëma woo ko def ñëma woo leen a def masinil moom ñaari ponkal yu tol nii ñu géewal leen ñu joxe masinil waaye loolu déedéet loolu déedéet waaye arbitre looy xool faar wala ah sufla waat na Alboury ak Bébé Gouy Gui arbitre bi xoolaatal li ngay arbitre la ngay daw noonu rek man yàlla boo tooy yàlla boo tooy li ngay arbitre xool ko mbër mi génn na deux fois xoolal li ngay bëri waay attention Bébé Gouy Gui mboot na Alboury mu repéeru waay waay làmb ji neex na waaye waay eh, ay waay làmb feeñ na. respecté wut li muy bëri. waaye dafa mën ne Alboury daa dajeeg Bébé Gouy Gui. day mbër mu ma mbër la taseel. voilà boo taseeg mbër da nga koy respecté am na loo xamante ne boo koy def da ngay xaar ba mu leer nga koy soogay def. mais moom mii ci fooyee combat am la nekk. te bébé guy gi bi ma gis neexul deret. dëgg la mbër la. trois trois am fi am trois victoires amul amul fi defee. kii mbër la. kenn wérante wut ni mbër la mbër kaamil la. na respecté combat bi. waaye kat ba nee na mbër boo nga koy ràññee bu simee ko kenn du laam laa ne kii mbër la. wallaahi. bébé guy gi mbër la. guy gi mbër la. jàppante nañu ñoom ñaar diggante Alboury ak bébé guy gi.

mbay guuy gi cameraman bi da far waye man faruma de man de faruma man de ku xees gi beug na mu daan waye faruma ku xees gi beug na mu daan waye faruma ña ngay jàppante ñoom ñaar yàlla na jàmm yàgg Alboury ak Bébé Gouy Gui attention attention attention Bébé Gouy Gui bul sàggane sa combat déedéet Bébé Gouy Gui bul sàggane sa combat Alboury ak Bébé Gouy Gui ña nga jàppante ñoom ñaar ho làmb ji neex na waay làmb dëgg feeñ na seex waykat bu mag bi ci réew mi xale tubaab bi arbitre arbitre toogal waaye sa dàll yu ñuul yi ah na nga jàppante ñoom ñaar ña <laughs> nga jàppante ñoom ñaar ngi Bébé ak la waaye Bébé trois combats trois victoire la am colom Fall musu fee am defet ci tund colom Alboury ñëw ne dinaa la ko jox xam nga ni loolu du yomb déedéet. Salman maa ngi koy nuyu borom États-Unis daan ànd ak kuy daan jàpp si mbir mi daan jiitu si mbir mi jàmbaari colom faal boobu tey mi ngay États-Unis dama ni picc ma sori waaye xel maa ngi fi wallaay ndeysaan Salman maa ngi lay bëggee ak waa états gépp nuyu naa leen wallaay ndeysaan Serigne fallu borom Italie fallu fal Galas mang lay bëggee borom colom mo ngi nonu diggante bébé guigi ak alburi alburi demal ci ay ah mo ji yag na nak neex na way yag na bëre leen bëgg ñibi ñibbi bëgg ñibi ñibbi bay leen bëgg ñibi Touba dañoo bëgg ñibi ñibbi buñ paree nag mu des gën a bu mag bi diggante r ak ki nga xam ni moom mooy la bu Kébémer ñaari mbër yi bëre leen dañoo bëgg ñibbi na mu ñu soxna yeeg doom yi ñëpp a ngi tekk déedéet. déedéet ku yëkkul da ngaa wàññi. attention attention Papa Guy gi daan na Alboury Papa Guy gi daan na Alboury Papa Guy gi daan na neewoon naa leen ko waxoon naa leen ko waxoon naa leen ko nee naa leen kii daan ko du yomb nee naa leen ku ko bëgg a liggéey. déedéet bi ñu duggee émission la rajo nee na daan dëgg waxoon na ma ko ku ko liggéey dëgg la kooku mooy indil leen ma ko indil leen ma ko indi leen ma ko attention taxaw leen voilà voilà félicitation mbër félicitation mbër non champion la abi ah champion mag la bak Serigne Touba ko bu yàgg mais champion la billahi yàlla ko yàlla waaye bëre taxawal guy gi taxawal guy gi taxawal. waaw waaw avant tout dama dama dama koy remercier dama koy remercier moom barke bu mag la billaay champion bu mag la maa koy ma xool billaay walaay maa koy nuyu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla boo amee amee beneen combat yàlla ko yàlla may dans barke Serigne Touba di waa Colom gépp waa Belloxo amu seen fay barke Serigne waa Xaatar waa Sédiker waa Polga waa Jéemul billaay barke Serigne maa la man waaw maa ngi Njaasaan gépp waa Tiwaawan di sant sama benn gaan bisaan bisaan deux mu tuddee waa Tiwaawan bak sëñ Tuubaa billaahi waaw gisoo waaw di sant nag sama benn sama benn mara bak sëñ dafa wàcc ab liggéey maa ngi ñaa ngi koy ñaanal yàlla fa mu tëdd yàlla ko yàlla gën yàlla ko ko mot merci merci beaucoup merci beaucoup waa bee loxo amuma seen fay bak sëriñ Tuubaa dañuy bàyyi seen yite yëpp ñëw fii billaahi di sérange amoo sile amoo sile Hey! ilẹ̀ àwọn. pardon ma ñëw puy may leen ma tuuti ñu président 5 Taxawu cinquième édition vous présente un gala de lutte le jeudi 20 juin ci diggante Kenekan R2 bu bokk sow jóge Rose Bangoy ci digganteem ak la Sander bu qui drapeau Ken. Pape Makodou Sall ana kan moo koy ndil Khary Fall ànd ak délégation bu mag ak ñi mu àndal ñëpp bu ñu lumee juum waaye dañu dul matal ana ñi ànd ak RDA ana ñi ànd ak la standard merci beaucoup jërë ngeen jëf merci beaucoup Khary merci beaucoup jàmbaar jaa ngi noonu waaye ndaanaan jaa bul saaga su meeku mu gaaw su meeku leen su meeku leen merci merci merci xëri man nga yóbbuwaat sa drapeau xëri merci beaucoup man nga yóbbuwaat sa drapeau merci beaucoup ah ah Ousseynou Ba Ousseynou Merci beaucoup. en production ànd bi moo nekk noonu la Sender bu Kébémer ak R2 bu Bangoy li moo rese bopp bi noonu mbarum Kébémer bi ànd ak waa Kébémer ñu dar fekk si ki ngay xam ni moom mooy R2 bu Bangoy waa Bangoy dar ko ñoom itam diggante R2 ak Lassender grand combat bi moo nekki noonu attention R2 jàpp na ko gaa yi nee nañ combat bu neex la nar a doon gaa yi nee nañ combat bu neex la nar a doon

indil leen ma ko indil leen ma ko jaajëf R2 kaay kaay kaay taxaw bala nga dem Babacar kaay Babacar kaay ma kaay kaay kaay R2 naka nga bëree tey kon comme ni ma daan bëree rek waaw ñun xam nga ñun nekkuñ ci écurie bu ndaw écurie bu ñëw écurie bës ko koy dégg waaw ah, mais di sant gars xam ah, man ah, yi ñoo ma dooleel wallaay ñii waa Lagros fay seen xaalis deux cent cinquante mille jël seen oto ba fii yaa ngi dégg mooy loolu billaay def bëri mais R2 at boo ñëwee fii ci colom da ngay jàpp bëre daan dem ñibbi lan mooy secret bi R2 waaw loolu seen la laa leen ñi wallaay heure mu leen rombee laa jëm mais comment nga dox nga gis ko si mbedd non non. mais est ce que déwén pare nga est ce que bu Kébémer. comment buy sa jàpp nga dem tey. waaw du ñu fay xaalis ñu bëri rek. non puy dëw puy dëw du ma bëri ak moom parce que kii kii mooy puy mu mag mi colom moom man doon bëri kenn wax dëgg yàlla colom. non du Corom ba léegi. est ce que turandoo la. non non non waaw li moo bëree ki mooy ñëw déwén incha allah kii. jaajëf waaw ki mooy ñëw déwén incha allah di sant gars yëpp nag. ah ñoom puy ñoom. waaw waaw waaw. non. wax dëgg yàlla organisation moom bu ma bii moom bu ren bi moom ah bu ren bi moom wax dëgg yàlla mosu fee am wax dëgg yàlla gars yi dafa jaaroon gisoo naa si coow amul mooy loolu coow nag moom mu lu ñàkk mais coow sew yooyu yooyu ak làmb ñoo ànd billaay noonu la demee ah di sant jom ñoom wës wës sugu ah ak wës mbër ñoom alaaji ak ay ñoom laay jërëjëf drapeau champion waaw waaw di wax di wax nag suñ booy bi ñu téye quoi ñu ñaan njëkk ñu bàyyi ko quoi waaw muy commandant ba après mooy loolu. mais waaw di sant gars yëpp nag kooku ay. waaw di sant waay waa Lac Rose waa Lac Rose Kër Mayra Mbengue paa ler leer noonu la deme eh, sama sama papa di sama papa ak sama ak ak sama rek gaay gaay ko ci merci beaucoup iya, iya, iya. merci. mafia bangoy bi mafia bangoy ah, ay Mamour Abdou ah, Algasim drapeau bi mooy Lastander bu Kébémer ñu nekkoon fii nga xam ne mooy diwaanu Colom Fall fekk si association ànd taxawu Colom Fall ren ñu amal ko mu tombeeg jeudi le 21 juin 2024 ñu amal ko fi nga xam ne mooy CM bu Kébémer wala boog bu Colom Fall gis ngeen combat yu neex yi nga xam premier combat bi doon dox bi combat bi association ànd taxawu Colom doon njëkk a organisé yow ak R2 la woon nga daan ko fi jël tey mu bëre ci ngoom la diggante bi waaw gisoo erreur dafa nekk borom baax rek mais wax dëgg yàlla lii nii lii nii ñu bëre fii nii loolu grand combat xam nga ne mooy loolu yow xoolal leen nga xool ba xam grand combat maak Albouri li ñu bëre ak grand combat ba xam bokk na ñoom déet ñun ñaar ay poids lourds ñoo ñoo diis ñoom ñaar ñëpp ñi bëroon bëri ñoo leen gën diis fuuf mais nag jeexam yàlla ñi doon bëreel jàppoon nañ ni bu ndikkee dañuy am seen gis nga waaw gis nga R2 maa ko ko daan fii nii. parce que kon kay R2 sama kaw grand combat. xoolal rek loolu du yoon. mais nag yàlla so na waaw gisoo jël jeex mais nag dina ñaanal jàmm yow parce que yow da nga ji quoi barke yàlla da nga ji da nga ji. ñi ngi woon fii nga xam ne moom mooy gis ngeen grand combat bi mu dox su ci eh, ki nga R2 ak R2 daan ko jël bu ñu taxaw ak arbitre bi ki nga souffle premier combat bi souffle dernier combat bi combat sept combat yu fi jaar yëpp moom moo ko soufflé combat bu njëkk bi nag mu amoon coow ñu bëri nee nañu machine bi du ca wut ndax waa ji daan nañ ko ci biir. waa salaamaaleykum euh, euh, di di di di gërëm nag euh, ñi organiser làmb ji ñëpp nag ban amee confiance jox ma làmb mooy bëre tey làmb ji làmb ji fi am yëpp bii moo dàq ci lamb yi arbitre bi moo gën a normal ci arbitre yi ah parce que lu non damay wax lu leena parce que sportif ñi ma xam dëgg bu ma waxalee man maay kan meilleur sportif man man xamal naa sam bopp lu leer naa ñu laay wax parce que komba pour man jàppante nan ci wetu wetu bi nii waa ji kii ma gis ñu génn ma soufflé am na ñoo xam ne combat bi moo leen yóbbaale ba duñ xam lu mu xew ma soufflé am na ba wax lu leer nañ laa koy wax lu tax combat yi fi nekk yëpp yéen bu ngeen seetaanee loolu ngeen fi mën a wax te comprendre ngeen te dama soufflé gisoo sànq am na grand combat bu amoon fii nii am na loo xam ne arbitre bi gisu ko sax man maa taxaw kii ko ndax dóor na ko hmm. loolu mooy combat rey bi te am na ñoom dañoo ñëw fii pour yàq te man colom ku ma xam mm. fii xaw ma fi xamaano fa buy damaa woo rek ma ñëw arbitre ko ñëw ànd leen lépp mm. te man ci dëgg laa xam ku dëkk colom boo ñëwoon ñu daan la mm. dama naan dan la daan même bu desee leer sax ta desee leer kee gën a leer la dama ko jox victoire man loolu laa gëm voilà dernière question bi rek mooy ñu organiser làmb ji mu tege ci sécurité lépp jaar si yoon naka nga gisee organisation bi ak lan ngay conseiller ñi nga xam ne ñoo am làmb gendarme yi parce que ñom wax deug yalla lu melni mom gulet ku xam colom lamb ju melni mu ngi fi doga am waaw dañ ko dégul won ci yoon nak te essay li ci jëm ci karam lu ne dana gëna reuy man ma la wax man Ousmane Gueye ma ngi fi nak toujours mais nak lamb nak mo wone ne bo arbitré am na ñuy ñu ñu ñu ñuy wax lu baax am ñu waaw waaw wa très bien lool la man koku man la gëna bokal man colom gi la dëkk waaw ci lu gatt rek parce que dafa melni ki jeex na ngeen organiser won lamb ji mu jeex si jàmm yan kàddu nga ci wax dëgg la wa sante yalla rek ginaaw biñ ci duggé ci bismillahir rahmanir rahim génn ci alhamdulillah alhamdulilah rabbil alamin di bu baax baax di xam ne lii développement la te lii doole moo ko mën ndax doomu colom yëpp benn bopp la comme ni ko kenn waxee rek kenn rek mënoon nañoo waxal ñëpp nag waaye dañ naan wax waxaat du bëri wax parce que affaire bi dafa yaatu te li nga xamante ne daje na fi ci wàllum sant yëpp dajewul ci benn xel mooy waral ñu koy partager kenn ku ci nekk mën cee jàpp di santaat ñi nga xamante ne ñoom lañ ko tuddee woon ci côté soxna yi ku ci mel ne Mariama kooku sama séeri la di nuyu sunu yaay Kumba Fall mi nga xamante ni moo ñu yombalal léppam tamit Fall mi nga xamante ni mooy dooleem di borom këram accompagner ko waaw def ci moom li war mooy mu ànd ak délégation mobilisation ñëw wane na comme doomu colom la na ñëw jàpp ci liggéey bi moom nii rek lañ koy defee làmb ji dafa dem ba dépassé xajatul fi ñu ko daan def ñu ñëw yaatal ko fii xam ne fii nag làmb ku ne xam na ni yelloo na fii mu nekk ñu ci am mbégte nag di leen sant nag yéen bu baax nga xamante ne at mu jot am ngeen taxawaay bu rafet at mu jot ngeen di ko wane di teel a ñëw di def seen i moyens comme ni ngeen ko mënee lépp noo xamante ne nu mu baaxee rek comme seeni organisation ni ngeen koy taxawalee rek nu ko raw bu ngeen dikkee colom loolu sax xam nañ leen ndax ay doomu colom ngeen ndax dañoo jaxasoo moo tax amuñu jaaxle ci suñ diggante ak yéen avant tout di sant Dembis mi nga xamante ni moom it sama nit la sama lépp la. wax dëgg yàlla ren lay door a fekkee combat ren lay door a fekkee làmb ji dara nekk ci bitti di ci participer ren nag yàlla dogal mu fekk fi mu daj ci coono bu baax a baax a baax wane gëm wane fula wane fayda xam ne moom nitu ambition la te colom rek moo ko ñor colom rek moo ko ñor voilà waaw jaajëf santaat ñëpp rek gërëm ñëpp rek barki borom Tuubaa lépp xaju fii mais jaajëf rek Baye Fall bëgg naa la. waaw ziar naa la. tey ngeen amal li nga xam ne moom mooy euh, euh, bi muy am chaque année ngeen amal ko colom organisation bi gis na mu jaar yoon tàmbali si jàmm jeex si jàmm nga bokkoon si arbitre ñi doon ñi doon arbitré làmb ji surtout grand combat bi nga xam ne jàppoon dina bëri coow lool mu jeex si jàmm yan kàddu nga siy gërëm. waaw xanaa di wax euh, di gërëm sëriñ Baara sunu yaakaar di wax jërëjëf sëriñ Baara ah li wax dëgg yàlla c'est pas la première fois. Euh, yag nañ fi organiser ay lam fi cholam wax deug yalla muy jaar ci yoon ah, di jall ni nga xam no lañ ko bëggee ñi ko organiser ñep ñaan ñi samay dom lañ ñaan ñi samay jarbat ñaan ñi samay frère lañ ah, wax deug yalla mu nek organisation bu neex bu jaaré ndax ah, jeune amul lu sport ñun ñi ngi ci lamb ji ñi ngi ci football bi ñi ngi partout dans le sport c'est parce que sport rek lañ bëgg mom lañ gëm mom lañ xam te moom lañ dund aussi waaw ah, fii aussi wax dëgg yàlla mu nekk euh, organisation bu rafet ah, jaar si yoon ñu bëre ko si jàmm ak salaam a ah, lépp fair play la rek c'est parce que yaakaar naa ay diggante Kébémer Colom Kébémer Sagata loolu lépp yaakaar naa benn région bi la lépp benn région bi la kon ndam li gënul région bi kon wax dëgg yàlla mu nekk loo xamante ne si euh, lu jaar yoon la lu neex la lu rafet si xol la ah di leen sant aussi yéen waa télévision wax dëgg yàlla kenn amul seen fay ndax fépp foo xamante ni si combat dem na fa si seen loxo la la fi rafet ah yéen la la fi ñaaw tamit ñu xam ne matadik doomu aadama la. balaa ma lay bàyyi rek ñu xanaa di leen wax ñu gën a jàppoo nekk benn. c'est parce que euh, tubaab dañuy lii ñoo fait la force. mbooloo mooy doole kon ni nga xam ne lañ koy àndandoo. di ko organiser à chaque année. di leen ñaanal yàlla muy gën di sax di gën di law ah colom nag nekk na loo xamante ni si doomu colom bi nekk colom ak bi nekk Kidira ak bi nekk Amérique bépp benn la boo si laal laal nga morom ji koo si waxal lu rafet moromam eh, da siy bëgg. kon ñu nek xalé yu déggo xalé yu bax di ñaanal aussi ma ngi jéggul ndax loolaa waroon jëkkee ñi nga xamanteni ci ñom lañ fi doon euh, rendre hommage moy Dame Gueye kooku sama génération la ah, Baara Dieng kooku sama xar chauffeur la Abdou sama frère la Idaali aussi sama frère la di leen ñaanal yalla yalla xalé na jëna jéggal leen seeni bakkar di leen sant di leen gërëm di ñaan seen télé bi yalla na dem ca kaw ci kanam ba ben ben télé du leen sut inshallah allah rabbi barke wala ñi ngi taxaw ak puy bokon ci ñi nga xamni ñoo jité lu melni ni organiser laamu ji puy euh, mu jaataamali ci jàmm jeex ci jàmm ngeen daan ko amal fële tay ngeen indi ko fi nga xamni moy sayam bi euh, organisation bi jaar yoon mu am sécurité mu jeex ci jàmm yan kàddu ngay wër ah yan kàddu la tiré ginaaw bo santé yalla yàlla julli si yeneen bi di wax alhamdullahi rabbil alamin quoi ma ñaanal ñepp di ñaan di sant ñu ma àndal ci liggéey bi ku mel ne Pape Kodou Ngañ Dembis mu Ndiaye bëgg Modou Fall Maam Thierno Samba Gueye As même bu ma limee rek damay dam dam bu ma limee damay jum maa ngi sant ñëpp ñu bëri lamb ji bi Pape Sala demee dana woon lamb ji du am ñu koy jaayaan tey di ko jaayaan di ko jaayaan mu met trop nag mu met trop trop trop da ngay tëdd sax doon nelaw ma man damay tëdd du deewu naan ndax lamb ji dana am ak du am mais teewul gars yi gunge xam nga gars yi gunge ma waaw waaw gunge ma daal léegi maa sant ñëpp di sant képp ku sant jeng nag mom laay njëkk a sant maa ngi sant waa colom sa kanam président colom sa kanam Cheikh Baye Dam ma ngi sant bu baax jàpp na si bu baax baax di sant Pape Sele jàpp na si bu baax Maguette Tall jàpp na si Baye Mari Abdou Gueye jàpp na si nga kii Bas jàpp na si bu baax a baax baax baax ak Maguette Tall jàpp na si baax baax di sant ñëpp ma andal daal di sant ñëpp ñu andal di wax ne lii neex na dara dàqu ko di ñaan yàlla euh, di ko def ay ay ati at at at at at ñi ñi ñi ñi dëddu ñu ngi leen di ñaanal yàlla xaar leen àjjana suuf euh, ayow seen kaw di ñaanal ñëpp di sant maam Diarra Fall di sant Pape Sall ma maa ngi koy sant bu baax baax a baax ak euh, Mariama Fallou Kumba ak kii nu mu tuddee di Awa Cissé man maa ngi koy sant ñoom ñëpp Ousseynou ak kii El Hadj maa ngi lay sant kan kan kan moo des ak Maam Diarra Fatma kan kan moo des ñoom ñu maa ngi sant dërëm ñoom ñëpp bi ñu diggee moo doon wër di wax ak parrain yi képp ku mu wax gàntul lu ñu ñoom ñëpp ñuy wax ñu ànd ak ñoom ci loolu ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di sant bëgg nag ma Ndiaye ñu ngi koy sant bu tey fayar teel la lay yee sept heures la yee ne la aywa day dikki fi xuloog ñun saaga dóor def lépp mooy loolu bëggoon lii rek bis bi réussir tey mi ngi nii ñëpp kontaan ñëw nañ ci fair play fii yaatu na mooy loolu daal waaw maa ngi maa ngi ñaanal waaw ñuy waajalaat bii ñu jëm incha allahu rabi maa ngi waajal ñëpp di sant ñëpp di sant commune de Thiolome commune de Thiolome bi 84 villages yëpp maa ngi leen di sant di sant di di sant commandant sama xarit la commandant maa ngi koy sant maanaam moom ñoo bokk ñoo dend fee kër Caaroy sama waajal démb laa fa demoon bu gisoo ko gudd na autorisation bi vingt heures la yemoon te lamb ji presque vingt-trois heures jot na mu nangul ñooñu lépp di sant monsieur le maire jàpp na ci bu baax a baax di sant préfet jàpp na ci bu baax a baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp daal billaay maa ngi ñaanal ñëpp ci kontaan naan ñëpp kontaan naa ci booy colom kontaan kontaan ci ñëpp waaw di sant di sant di sant Babacar mii Babacar jàpp na ci bu baax a baax a baax dooroon ñu publicité sax te joxuñu ko avance lamb ji dafa dafa cate woon moom dooroon bu ko neexoon mu ne du ma leen door a publicité tant que joxu leen avance dooroon nañu publicité te joxuñu ko avance di sante boy cholomi di sante mbër mi nga xamni ñaax la dëkk ak yeneen bëri boy xol trois grands combats do ngi leen jox avance bi yeneen boy yeb dañ leen ñew wax leen lamb ji ñu nangu ñu lamb ji barke alcorane karim ñi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm ñom ñep di ñaanal ñep jàmm di ñaanal jeune si colom bi ñun ñep ñu manko ñun ñep ñu nekk ben bu bu nekké ben de rek ci kaw kenn ñun duñ xulo duñ xex duñ ngaaya duñ def dara ñun foo ñu fekk dañuy kaf dañuy ree Sama Gueye du ma bàyyi ma fen Pape Codé mi ngi nii groupe bi noonu lañuy def dañuy jékki-jékki waxtaan ci làmb ji pare yi ñuy jàpp kenn ku ne kaañ kenn ku ne di jàpp sa morom kaañ ñun loolu lañ xam duñ ñu gis ñuy xeex duñ ñu gis ñuy xuloo nin mel noonu lañu mel damay sol yëre Pape Codé wala yëre Sama Gueye dem wala ma sol yëre bëgg wala Pape Seye dem ñun noonu lañ koy defee colom benn la booy noonu tëggal làmb ji maa ngi ñaanal ñii ñi ñaanal bi làmb nii quatre personnes yi tey xam nga loolu sant yàlla ñoom ñëpp tukki nañ ñi ngi ñaanal déwén ñeen dem tukki xam nga ñun dañoo bokk ànd nekk benn suñu xol yëpp nekk benn kenn yéen tun kenn ku ne li nga am tamit dañ la koy nangul kenn ku ne li nga am dañ la koy nangul barke alxuraani karim ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di sant Pape Sall Pape Sall chaque jour ak Pape Mbaye Thiam Pape Mbaye Thiam ñu ngi koy sant keroog moo ñu yóbbu rajo Kébémer ñuy def foofu pic dafa jugee ñaax ba fii après tabaski xam nga après tabaski moom ñëpp seen kër la ñuy toog dan ko woo mu ñëw déplacé wu ñëwaat fii toog xaar tànn béer gi billaay ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm di sant ñëpp barki alxuraani karim waaw groupe bi moom xam nga parfois dama ci doon nekk di ruubee parfois may nekk si groupe bi di saaga di def yëpp mais gars yi may comprendre parfois su may waxee puy baal mu sedd puy baal mu sedd tey lii leen bëgg ñun ñëpp ñoo bokkoon luñ bëgg mais loolu sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp képp kun tooñ ñu ngi lay baalu barki alxuraan nañu ñëpp baal sant naa ñëpp gërëm sant waa colom ñëpp paa yi maire ñëpp maa ngi leen di sant ñepp ma leen sant ciorom sa kanam ma leen sant sun mag yi nekk bitim réew ñëpp maa leen sant di leen sant di leen gërëm di ñaanal ñepp jaam ñen jëf am seen internet yu seen xibaar comme ni leen ko waxe won ci début bi ci tàmbali bi ci suba gi tay ñu nekk fi nga xamne mom moy ciorom fekk ci association ànd taxawu ciorom fall di amal galade lit bu mak bu ñu tabaské ba am 3 jours mu yam ak tay jeudi le 21 juin 2024 ñu nekk fi nga xamne moy mooy bu ciorom fall gis ngeen grand combat yi gis ngeen combat yi ndaw yi un combat bu mujj bi doon dox ci digënté ki nga xamne moy R2 ak ki nga xamne mom moy mooy standard bu Kebemer R2 2 daat koy daan jël bu rëy gis ngeen ñi nga ñoo programme bi organisé laamu ji kaddu yi nga xam ne nañ ko ñi nga xam ne nañ leen si laamu ji ñëpp sant ñëpp di gërëm ñëpp na si bis bi jàppale ñi nga xam ne association ànd taxawu colom faal ñi ngi sant ñëpp rawatina waa colom ak képp koo xam mi ngi si biir réew mi ak bitim réew di bàyyi xel site bu mag bi nga xam ne moom seen xibaar jox leen di déje ba déween rabbi ñëwaat nga ko comme ni leen ko daan ci caméra bi ànd ak ki nga xam ne moom Khadim Dia si safo ki nga ñu doon dawalal Moustapha Diop waykat bu mag boobule di sant Cheikh waykat bu mag bi moom itam ak sama waa jële Pape Thiam Mbaye nga xam ne lu mu commentaire bu baaxut jaa ngeen jëf jox leen di dégg beneen yoon incha allah yàlla na ñëpp am jàmm